muy su borom dogal bi nga xamee ne sëriñ bi mi ngi leen a jox turu Majmahun Nurayni ci biir kër gi maa ngi toog keroog fi la ma fekk. moom moo ci doon wax dama naan buntu la buñ Sëriñ Tuubaa ubbil ngir bëgg noo dimbali. li koy gën a yéem ñii ak yi ñu yor ni ñu doonee ay gone ak pas-pas bi nekk ci ñoom ak addi yi ni muy toll te li nga gën a yéem mooy lan ñoom ñee kenn koo xam ne am na ci salaire daanaka amul. mu yegg liggéey Sëriñ Tuubaa bii de na ngeen xam maanaam bokk ngeen ko dafa ñëw kitaabu ni lii lu sëriñ bi nangu la dafa jafe jamono ji ñu toll nii. te wax yéen a ngi gis li ngeen di jëf fi mu koy jëmee seen bët yi mi ngi ciy tege bu baax loolu it ñu doon ci seede bu baax a baax. inna al muhibba liman yahwa zawwar habni amala bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa salihi xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mboolem waa fédération Majmahun Nurayni ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu baax ci turu seen jëwrin Serigne Saliou Fall di sant bu baax nag ci jotaay bi ñu am ak yéen ndax jotaay la boo xamante ni ah, dañ ciy sawar lool ndax da ngeen fekk ñuy gëstu ci mbiru sëriñ bi ba si ci ñëwam Cees ak limu mu làmb loolu nag kon kuñ ci laaj dañ ciy sawar a tontu Euh, balaa loolu tamit may fàttalikoy tamit lépp lu jëm ci liggéey bi muy su borom dogal na bi nga xamee ni sëriñ bi mi ngi leen da jox turu Majmahun Nurayni ci biir kër gi maa ngi maa ngi toog keroog fi la fekk loolu di ak cant maa ngi fàttaliku benn ziyaar boo xamante ni bi ngeen ñëwee ziyaar ba noppi mooy ziar bu yaatu la woon bi ñu noppee sëñ Sidi Gaye daf maa wax ni ma sëñ bi daf ko woo ne ko daa mel ni ziar bii de bu ren bi moo gën a yaatu bu daaw ba sëñ Sidi ne ko waaw mu ne ko ah, daa mel ni daa mel ni mi ngi yokk kon baatu baatu mu ngi yokk googu sëñ wax ci yéen loolu tamit gis nañ ko bu baax a baax loolu ab cër la kon loolu doy na sëkk rek ci seede ko ci. mbooloo mi ci loo xamante ni lu ma mën a fekk la waxaala min duni sahlun wa awaaru wax ji de fi ma koy tàmbalee mooy sant yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax ci eh, ndimbalam ak kàttanam ak mbaaxam ndax am na loo xam ne ku ko yàlla wërsëgal bëgg na laa dimbali na nañ ci yow itam ab texe loolu nag mooy dajeek jëmm joo xam ni li ko tax a jóg mooy jëriñ la te ci biir njëriñ loolu séentuwu ci sa waaw góor séentuwu ci saw fay waaye lim ci bëgg rek mooy am ngërëmal yàlla yow mi ko dëgmal si itam nga am ko yàlla defal ñu tawfeex ñu bokk si ñooñu. diggante sëñ Saliou Touré ak fédération Majmahun Nurayni déet yi loo xamante ne xam naa du dana dana dana lu yaatoo yaatu la waaye xanaa ñu jëm koo tënk rek ndax dañ di woon ay ndaw yoo xamante ne ndaw yu bëggoon a liggéeyal sëriñ Touba lañu bëgg lu baax di sàkku ngërëmal sëriñ Touba doon daw fu ne di ko jéem a wute nu ne. waaye moom ci yërmandeem ak ci mbaaxam moo nu dimbali dimbali gi ñu dimbali mooy woo gi ñu woo dajale ñu takk ñu ci benn bu muy Majmahun Nurayni nii ñu liggéeyloo di digal di tere di ñu teg ci yoon maanaam loolu mooy loo xamante ne lu mënul woon a ñàkk la te Cheikh Saliou Touré moom la ko moom la ko suñu borom jagleel ngir mu dimbaleenu ko waaye kenn ku ne xam ne liggéeyam ci biir Thiès moo doonoon mu jël waa Thiès yóbbu leen ci Serigne Touba. su fekkee nag ñëwug sëriñ bi fii Thiès dañ koy séddale ci ñaari xaaj benn xaaj bi dañ ko tudde sababu zahir euh, euh, sababu baatin beneen xaaj bi sababu zahir li tax ñu ne sababu baatin mooy sëñ bi dafa nettali lu bari ni dafa gis sëriñ Touba jaxaran mu koy wax dama bëgg nga liggéeyal ma si ma sama tool bi loolu ñu ngi ci ñëw beneen bi mooy ni ñuy nettalee ñëwam fii cees ak moom li ci sëñ Abdou ak moom ak sëñ Saliou ak sëñ Abdou Khader ak mag ñi nga xam ne ñoo fekke woon tamit liggéey boobu kon amul benn sikk sàkkani ni waa kër sëñ Touba muy ay doomam te sëriñ bi daan leen woowee Touba ñooñu ñoo ko fee seen digg ak Serigne Saliou Touré wax dëgg dafa doon lu yàgg waaye bu ñuy wax ziyaaru dongo yi buñ koy xayma àgg na ci fukki at ak juróom te dongo yooyu doon loo xamante ni sëriñ bi da daan wax ni de ñoo ma gën a ñor ci lépp ngeen sàkkal leen bis at mu jot lépp lu jëm ci ay woot ak koddaay lu jëm ci seenug dund ndax dem ngeen ba sàkk weer wu jot ngeen indi ravitaillement boo xamante ni da ngeen koy indi fii ci kër sëriñ bi boobaak léegi nag mu nees saa fukki at ak juróom waaye ëpp na fukki at ak juróom kon seen taxawaay bi lu yàgg la seen diggante ak sëriñ bi laa yamna'annaka bu'dun min ziyaarati innal muhibba liman yahwaa zawwaaru ëppoon na si ñun ñu nekk Cees dund fa màggee fa sëñ Saliou Touré nekk ci dëkk bi te demuñ ci te ci moom ba mu xàmmee nu ba nu xam nu ba mun ñoo seedal sunu liggéey loolu dong doy na ak cant ndax bari waa na koo xam ne mi ci dëkk ba mi ci dëkk bi dem mooy ni ñun wala sax muy ab jullit ni ñun waaye tawfeex gii nu am moom ump na ko la boog yàlla boolew ko ci mañ ma noone ni bu ma ko doon tënk dama naan moo ko sos loolu nag doy na tënk lépp lu waaye tàmbalil boppam rek da koy fonk daara ji doo ko fonkoon képp koo xam ne mës ngaa fekkee fu nu jataayoo ak moom danga nga yëg ci waxam ni kiy wax mi ngi wax ak ñum fonk di leen sant bu baax a baax ci gi nga xam ne boole ngeen ko seen bopp taxaw taxawaay boo xam ne bi fas yéene fas da ngeen a fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuuba liggéey boobu nag nga xam ne ay at a ngi ngeen ubbi ko ci seen kanam ne yéen a ay ngërëm yu rëy yu bàyyi ko ci sun borom jàll ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci Sëriñ Tuubaa ñëw ci yéen ñun ñëpp danaa mat bokk ci ku ma neex la nanu sant bu baax a baax te gën a rafet sunu njot muy dee ëllëg ci suñu diggante sëriñ bi kon bu bu bu defee loolu ci ñun ci ñun dongo yi maanaam loolu day doon loo xamante ne rek continuité liggéeyam la eh, ca njàlbeen na mu na mu demee mooy ci ceslaay ga eh, daayira bu nekk ci école yi da daan eh, dem di ko siyaari di def ay activités yoo xamante ne individuel lay doon waaye ba mu demee ba am yërmandeem ba mu ba mu ba mu ko namee yaatal ci mbooloo mi ca la ma woo ba ma ñëw mu ne ma Saliou Ndour dama laa na ma liggéeyloo liggéey loo boobu nag moo doonoon lan dajale mboolem élèves yi ak yi ci benn buum muy maj bu muy war yi. jiitu ma sëñ Abdou sëñ Abdou Lahad Mbacke Cheikh Abdou Ahad Mbacke jiitu Serigne Abdou Khadar Mbacke Serigne Salihu Mbacke Serigne ak Serigne Moutada sëñ Mouhamadou Mouhamadou Moutada yii juróom ñoo ànd ànd Serigne Saliou ngir mu doon imaam. ci barab bii nga xam ne mooy jàkka ji bi bi mu yeggee ñu andi ko fi nag ngir mu doon euh, imaam bi waaye ñu andi ko fi mu nekkal fi sëriñ Touba ci yeggale yeggale waa Thiès ci yàlla loolu mi ngi dina gën a leer ci biir te waa ko Serigne ñoom rek buñ maase woon dëppoo. andi fi sëriñ bi te loolu nekkul ni sëñ Tuubaa sax moo ko moo ko wax day doy sëkk ndax juróomi doom sëñ Tuubaa lu ñu dëppoo loolee sëñ Tuubaa jumat sëkk la kon loolu moo fi andi euh, sëriñ bi. loolu nag lenn dong moo ko mën a sabab te mu wax ko mooy sëñ Tuubaa moo ma boole ak loolu nag dimbal defal taw tawfeex ba tey fi liggéey bi àgg. ak li ñu ciy dund ak li ñu ciy yëg lépp da nga yëg ni waxoon nañu ko wala boog juñoon nañu ko ne yoon yu ñuy ñuy teg bu ñu ko wàccul faaw fi sëñ tubaab namm ab taalibe bi àgg fa faaw dinañ fa àgg. bañ ca génnee tamit ñu waxtaan ca yañ ca war a waxtaanal ñu dox lañ ca war a dox daje ba ñu ñëwee moom moo tuddee mbooloo mi Majmahun mi ba ñu ba loolu wéyee liggéey bii nga xamante ne moom lañ doon def. moom la def nii sax muy euh, ziar bi nga ne dañ koy ziare ndongo yi te dañ ko jàpp bës rek waaye am na liggéey yoo xamante ne moo ko jiitu mooy weer wu ne ñu taxawee ravitaiment yi loolu am na ay kilifa yoo xamante ne sàkk woon nañ ko ci moom waaye moom Cheikh Salif Touré ci mbaax gi ak yërmande gi daa mel ni daa gàntaloon ñooña waaye ñun la ñuy doon doon doon ay ay ay élèves jamono yooya xeebu lool ci ci ci ci wàllu man-man ndax suñu kàttan matewu ko woon waaye moom mu nangul nu ko nangul gam ñu ko nangul nag la ca gën a doon tawféex mooy def ñu ni liggéey bii de liggéey bu Serigne Touba nangu la euh, ginnaaw ba sëñ Saliou Touré ci boppam moom moo ni liggéey bu Serigne Touba nangu la kon ku dib murit maanaam war ngaa rafet njort war ngaa mën a tabbi ci liggéey bi te nga xam ne liggéey bu Serigne Touba nangu euh, bëreetul nga mën a taxaw mën a kitaabu lii lu Sëriñ Touba nangu la waaye lii lu Sëriñ Touba nangu la ndax ñoo ko moo ko wax ci ñoom ñu dégg ko ci sunuy nopp. mu ni liggéey bu Serigne Touba nangu la fanajhi wa filu awzara wa kullu man ahabbani amala mu ñëw Cees nag ne ma ñëw Cees ci kër sëñ boo kër sëñ mooy fii mooy école Al Azhar bi mooy kër mooy kër sëñ Basiru ne fa ñëw su guddee ma simmeeku du sol nee du ma sol dara lu dul fi ñu war a suturaal laay laay suturaal nee na di jàng di jàng xasaayit di jàng alquran ñaa ma ne ci loolu ba mujj def ma yeew nee na ma yeew sama bopp ci tàngalal bi daal ne su ma Sëriñ yeewul fii duma dem ah, maanaam fii laay fii laay fii faatu nee ma ne ci ba sonn ba yëg ne sonn naa ba tàmbalee xaw a maanaam mel ni kuy xaw a daanu nee na ma gis Sëriñ Tuubaa taxaw sama kanam ne téye ci buum gi di ko yëngal nee keroog laa njëkk a gis Sëriñ Tuubaa loolu nag liñ ci jàngate mooy kon loolu day wane ni mission Thiès la. mboolem ku fi teew sëriñ bi ñun mboolem élèves yi ak étudiants yi nekk ci dëkk bi ak it li wër dëkk bi lu mel ni xombal tubaatul sange ak fédération jobaas bi nur dara yi ñoo ànd liggéey bi tey ñoo ko woote it waaye daa mel ni ndimbalu Sëñ Tuubaa tàbbi na ci ngir bu njëkk daan nañ ci wéet loolu waaye ren ànd nañ ci suñuy magi taalibe ak it ñi ñàkkal ci école ya ak it mboolem dëkk bi te noonu ñu ko àndee it lanu fas yéene murit bi njëkk a jébbal ci Sëñ ba ci bi bi ci mujjee jébbalu dugal nañ ci biir liggéey bi jombul nag ku mësa liggéey ba mu yegg am na looy bëgg di ko ci xëcc mbaa nga am looy ragal di ko ci daw di ko ci joñ ñun nag xëccuñu dara dàquñu dara ndax doy nga ñu sëkk ci xëcc ak dàq xam nañ ni loo xëcc ka koy xëccal la mu bëgg ñu bëggal ko ko mu koy jëriñ ca du ko lor dana dajeeg moom koo dàqalit la mu ragal ñu ragal ñu ñu tiitle ko ko mu di ko lor te du ko jëriñ dana ko sori moo tax ñu fase ko noonu waaye nag danañ danañ def saa yuñ dajee jàng alxuraan ak xasida tëjeeg ko jublu ci nga yàgg fi lool te wér ngir lu bari lii daje bi daa mel ni benn pas-pas moo ko tax a jóg mooy jëm ci sëñ Tuubaa àgg na sax ci wax yi yu gën a sori wax yu rëy am na am na xeetu wax yoo xam ni bi mu koy wax sax ñu xamuñu wax yooyu lu mu doon àggaguñ sax ci dayab xam wax yi wax yi lu mu doon xam nga bu toogee ci jataay mbooloo mu bari mbooloo mu yaatu wër ko lépp di daara ji mu ni bu fekkoon ni am na ñu dul faatu ma ñaanal leen ma ñaan suñu borom mu booleen ci ñi nga xam ne duñ faatu loolu te nit koo xam ne la ko fi bàyyi mooy jubal nit ñi ak àggal leen ci yàlla dafay dafay mel lu yëg ni yoon wi muy tegtale mbooloo mii mi ngi ci te bu sañoon ñëpp roy leen ci. Cheikh Salif Touré nag euh, yërmandeem moo tax rek moom mu mu yéene ñu liggéey bi mu xàllal ñu yoon woo xamante ne. mën nañ ci di liggéeyal sëriñ Touba te ñu sañ kitaabu ne lu sëriñ bi nangu la ndax euh, liggéey bi ak ya jiitu euh, am na yeneen liggéey yoo xamante ne sax tàmbale woon nañ ko ak moom waaye xam naa ne bii daal ñor gi mu ko ñoroon moom moo taxoon mu ni woon euh, mu mu féetaluñu ak liggéey bi laa yamna'annaka bu'dun min ziyaarati innal muhibba liman yahwa zawwaar saa su ne rek ñu ngi doon jéem a seet nu mu def ba liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jëmmam ci waaye lu njëkk rek mu xam la ñëpp ni <coughs> dafay toog toogaayu Sëñ Tuubaa toog boobu itam lépp lu ko ci waaye di dimbali na doon liggéeyal Sëñ Tuubaa bi am bis nag ci pàcc yi nga xamante ni moom la Majmahun ni am lycée bële di Fathul Wahab nekk ca lycée technique yàlla dogal ñu nekkoon fa am bis ñu daldi xalaat ni sëñ bi kat bi mu fiy ñëw cees sëñ bi da ko boole ak ay ndongo ñoo xam ne naka jëkk li diir mu nekk Thiès yëpp jàngalekaayu daara ji moom bis bu jot mënut a dakk ay ndongo di fa yeewoo di jàng alxuraan guddi ak bëccëg mu yore leen lépp lépp lépp lépp lépp benn waajuru ndongo musta xam nu ndongo yi toogee lu ñuy lekk lu ñuy naan lépp mu yeyoo ko yor ko ci biir kër gi ak boole ko liggéeyam bu rëy bi mu xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët. waaye ba tey tamit day wane ne ci biir gox bii gox bii mu nekk kon fi bi nekk ndax soo xoolee école bi ak jàkka yi dañoo xaw a jàkkaarloo soo taxawee ci kër sëñ bi ci këram gi la it da ngay seen biir école bi kon day mel fii mu fii la gis gis Serigne Touba. kon day diggante boobu fi la mission war a kon loolu day ni ishaara la junju la buy wane ni kon fii fi la mission bi daa amee. ànd moom lu jege fukki at ak juróom waaye amul benn yoon booy jël kenn ci waa daara ji mu wax la ne siñ Saliou Touré mës na sant lu jëm ci boppam walla Sëñ Saliou Touré mës naa woo woo bis ngir jëriñoo ma wala Sëñ Saliou mës na teg loo xam ni. diis na diisaay goo xam ne am naa jafe-jafe ci taxawal sama jàng loolu musta am te ci biir loolu lépp mu sóoraale way juri sóoraale cam njàng mi ci biir ànd gi mu ànd ak ñun ba saa su ne bu gisee ni sax ci taalibe gi ak pas-pas bi mi ngi bëgg a rëy mu delloo si waat ñu xam ne ñu lee itam lu mat a fonk la loolu boo tënk ma naan nii lii moo tax ñu ànd ñu ànd ak moom. sun sun waaja ca Tuuba mën na boppam lool kon nag noo ngi sant bu baax cant gu mat sëkk ci jëf yooyu yi nga xam ne jëfoon nañ ko bi noo ngi leen ciy sant bu baax. bu baax. ci bi. liggéey biir ku ko gis nii mu toll. nee liggéey biir ku ko gis nii mu toll. te dara yë te dara yënguwu ci. te dara kon xam na ne borom yar ngeen. nee kon ñu xam ni kon borom yar ngeen. boromam yar ci diine lislaam nag mooy kiy yëkkati diine lislaam mu jëm kaw. ne boromu yar nag ci diine lislaam mooy kiy yëkkati diine lislaam mu jëm kaw. kon bisu tey xam ne ki mel na mu jëm kaw. nee kon bisu tey jii mel na ni bokk ngeen ci ñi nga xam ne ñoo yëkkati diine lislaam mu jëm kaw. wax na naa ko ba tay nee wax na ko ba taay. nañu bëggante. nañu bëggante. nanu jàppante. nanu jàppante. nanu bennoo. nanu bennoo. ci diine ji. ci diine ji. maa ngi leen di sant yéen ñëpp. sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant yéen ñëpp. fas naa nee fas na lépp loo xam lépp loo xam ni. yoon wii nekk. yoon wii nu nekk. am na lu mu soxla. am na lu mu soxla. te Saliou Touré nekk fi. nee te jëmmam ju tedd ji di Serigne Saliou nekk fi yàlla fi yàgg. te te te te te te man ko. nee te man ko. dinaa ko def. nee dina ko def. te duma ko yëgal kenn. nee du ko yëgal kenn. Ah. sant bu baax. sëriñ bi nee nañ bokk sant bu baax. cant gu ma sëkk. cant loola nag biñ ko yëgee ñu daal di wax ni kat liggéey suñ tubaab booba muy defal suñ Tuubaa war nañ ci sos suñu dara donte suñu asaka yéene la ku xam élève xam ni wër wërsëgam tollut noona dañoo yeggoon ci sax bis boobu wax ni képp koo xamante ni yaa ngi indaale li ngay ndékkee bu dee 1000 francs la na ko xaaj bu dee téeméer la na nga ko xaaj. bu dee deux cent la nanga nanga ko xaaj jël cent yi ndekkee ko beneen cent bi ñu bokk kook ndog ndongo yooyu xam ni bu nu ndekkee ñoom ndekki nañu suñu añee ñun ñoom añ nañu. muy liggéey boo xam ni sëriñ bi man la ko joxoon muy wàllu donga yi bi ma ñëwee damaa wax ne ma deel fóotal donga yi di sang daan ne ku baax ku ne lu mu am ca loolu la ko amee loola nag ñoom sëriñ Saliou Fall mii sàkk woon ci man daal di wax ne. dañoo bëgg di fóotal donga yi man quoi ah, loolu day sëriñ bi dama cee joxoon ndigal te it waxuma ni naa ko jox kenn ma ne ko nag loolu nag damay dem ca moom ba noppi moo ma ko joxoon su ma ci joxee ndigal nag ma daal di leen koy jox bi ma demee ci sëriñ bi wax ko daal di xamal ni ko élèves dañ may laaj yëre yi léeg-léeg bëgg koo fóot ma ci doon laaj ndigal mu ne ma bu leen ko laaj bu leen la laajee rek jox leen ko noonu la ma ko waxee ma bu leen laaj bu ñu la laajee rek jox leen ko waaye booba waxtu wu nekk ñu ngi koy jël si ci daara ji dima ci soññ ma leen koy jox ñu koy fóot am na soxna soo xam ne sax moo ci jiitu woon ci daan ñëw fii sax daan ko jël si ku ñuy wax soxna nday faatu jonn moom léegi fi daara ji sax la féete ni moom moo ko daan jël si bu njëkk ginnaaw gi nag loolu di dox ba léegi ba waxtu wu nekk bu ko soxna yi laajee sëñ baara damay woo rek ne ma soxna yi nee nañu fóot bi ma daal di koy dajale jox leen ko ñu defar ko ba mu yéwén loolu ba bu accès sax daanaka man sang rek laa ciy def rek gën a àggale li ci des muy liggéey bu bu rafet bu sëriñ bi gërëm it. buñ ko mosaan euh, siyaare ji li ma gën a jàpp li ma gën a marke ci kàddu yi mooy ginnaaw bi mu jooyalee kàddu yi cant jëmee ko ci mbooloo mi euh, lii ma doon wax léegi nii mooy xam leen ni liggéey bi liggéey bu sëriñ Touba nangu la loolu moom da di woon loo xamante ne daf maa defoon à lool ndax di liggéeyal sëriñ bi. nga sañ a kitaabu ni lii lu sëriñ bi nangu la dafa jafe jamono ji ñu toll nii waaye bi ci topp mooy mos nañ ko siyaare ji mu bëgg lool xam xamal ñu ni liggéey bi ngeen di liggéey yéen a ngi liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Touba képp ku koy liggéeyal ci ay dongo maanaam yaa ngi ci alxuraan gi yaa ngi baddali ay dongo ak yu demee noonu eh, xamal ñu njariñ ya ca nekk yëpp. dama ànd ak sëñ Amar Diouf. yegg si fi jàkka ji romb jàkka ji booba ñu ngi fi ràbb ay pajaas ak ay sàkket di ko jaay nee na ma ne ko sëñ Omar tey naa wax mbir mu yéeme ne ko barab bii de damaa gis Serigne Touba mu ma jox naa ni ma nag luy bari coow la waaye di nga ci mucc daa ne fi ma waxee loolu ak fi ma nomee imam bi mat a ëpp na fukki kon day mel kon bare Serigne Touba xamal na ko ne ko barab bii fi la di amee. Ah, bi moom moo ci doon wax dama naan buntu la buñ Sëñ Tuubaa ubbil ngir bëgg noo dimbali ndax Sëñ Saal Ture faaw mu fonk la lool def la ni boppam lool ngir yi nga xam ni moom la ko Sëñ mu cëral la ci loolu mooy ndigal yi nga xam ni bi muy ñëw ci dëkk bi yii da koo indaale yii da koo dab ci biir liggéey bi yooyu nga xam ne ay ndigal lañ yoo xam ne jot nañ ko jot na ko ci fonkeel gi ak wagal gi Sëñ Tuubaa xam ne Sëñ Tuubaa la koy defal tax na du caagee ne ku jug indaal indi daal rek mu dugal la ci biir loolu loola jur ci liggéey boobu wax dëgg yàlla ñu ne nañ ci dem laaj ko ci ndigal biñ fa demee yàlla dogal ñu fekk ko ci tawféex ndax li may tuddee tawféex mooy dañ koo fekk ci biir néeg bi mu toog ñu ñaan ko ndigal ne ko de mbooloo mi kat daa xalaatoon booba ñu indi saaku ceeb benn bidon dawliñ ak gorosu saabu biñ ko indee ma ci ziyaareel Serigne Ibrahima Dia moom lañ ci àndaloon Serigne Mor Fall ñu àndoon ak moom mu nekkoon jëwrinu liggéey booba ñu di ko ci moom xamal ko li tax ñu def ko ak yéene ci mu daal ne kenn xamul lu mu doon <laughs> daal ndax bis ni démb kilifa ci nguur gi ñëw na fi di sàkku yoral ma ndongo yi bi mu ko sàkkoo ma gàntal ko ko ndax xam sëñ tubaa li mu ma defal ak li mu ma téye kon su ngeen ñëwaatee tey nga xam ne bis rek a ci dox di sàkku ànd ak man ci liggéey boobu damay xam ne sëñ tubaa moo leen feebal jox naa leen ci ndigal te di ngeen def ba di ngeen dem ba ànd kook ñëpp. ziar bi tamit daanaka bari na ci sax fii mag ñi fi nekk sax bu bu bi accès dañu naan moor ziar bi sa la ndax eh, daanaka li ci ëpp ci sama loxo bi lay lay lay tege. daanaka boo xoolee ba ci yére yi nga xam ne dañ koy ñawal dongo yi ñu koy sol diggante tabax see korité loolu sax maa ko dooroon maa ko njëkkoon a def dem yot ko sëriñ bi ne ko dongo yi laa ko xottil ci ci korité geeg xaw ma korité loolu si daal sorewul loolu mu daal koy rafet loolu bi at mi del siwaatee nag ci la ñoom suñu sëñ Saalifa sàkkuwaat ci man yére yooyu ngir def ko ba loola ba tey ba fii may waxee ne yàggul dara sañ baar ñëw na fi am ku mu fi yebal mu jël mesure ngir woyee liggéey boobu di dox ba tey muy liggéey bu rafet boo xam ne ñu ngi koy rafetlu waxtu wu nekk ba ci li jëm ci wàllu rafetaillement yi nga xam ne chaque weer danañ ko fi andi sëñ baara bu ci tollee bu nekkee ca mars ba damay wone ma lan la ñu manqué ak lan la ñu war a indi ma daal di xool li nga xam ne moo manqué ma wax ko mu indi ko muy lu rafet rafet loo xam ni sëriñ bi da koo gërëm. ndax moom moom sëñ Saliou moo dem ci sëñ Abdoul Ahad Mbacké ne ko ko sëñ dama sonn ci moom lool futteeku laxasaayu liggéeyal ma tu ne daj na ko ci liggéey boobu te lépp lu lu lu ñu war a jàng rek jàng na ko xam na ko te it gërëm naa ko ma bëggoon nag ñu dagal ko suuf su yaatu defal ko fa forage widoo fa ay donga mu nekk fa ak ñoom sëñ sëñ laa tontu ko ni ko loolu day baax na waaye Saliou sëñ Saliou Touré loolu weesu na ko lim daj ci am njàng ak njàngale nañ ko jël yóbbu ko ci dëkk boo xamante ni ñooñee kat dañoo aajowoo ku leen ku leen yóbbu ci yàlla te moom yi mën na ko ci ginnaaw loolu nag ci la sëñ Saliou dem sëñ Abdou Khader wax sëñ sëñ Abdou Lahad wax ko sëñ Abdou waa Thiès lool loolu nag dajeeg waa Thiès ñoom it di ab barab ngir kër Sëñ inna allazina ila sarsara qad xasadu ziyarati faaraxu daarayni aw zaara zurman tuxibu wa in shata bika min وأوار زر من تحيب وإن شط بك الدار وحال من دوني سول وأوار ni ma waxoon sànq ne lépp ndigal loo xam ne jot na ko rawatina ci ku mel ne Sëñ sellal gi mu sellal ak rëy gi muy ci moom ak fonk gi mu koy fonk dana tax du ko caagee ne ku jug ngir bëgg cee dugg rek mu dugal la ci dana xool yow kan xool li ngay def xool ba xam yéen a bokk pas-pas xool seelitu jëf ji ba noppi doog la doog la dugal loolu nag nga xam ne moom la nangu nanguloon dugal ñu ci biir tawfeex googu nga xam ne moom la ko sëñ wu dénkoon ngir mu yoral ko ko fii ci dëkk bi loolu mun naa wax ni boobu ba tey bi ñu ko tàmbaleeg tey ci 2013 ba tey fàttaliku ma at moo xam ne dana jëmmal liggéey bi nga yëg ni liggéey bi deltu na ginnaaw waaye loolu moo waxoon mel ni bal ñaari weer lañ ci teg mboolem fédération bi yëg liggéey bi xam ni lii kat posé la bu ñu waar a jaar liggéey li ci Sëñ looloo tax diir booba ak léegi amul weer woo xamante ni la vingt 23 bi ngeen gis ñu koy annoncé dafa tombe bis booba tombe woon ak le 23 ci weer wi ñu yóbbu ko moo tax ñu def ko anniversaire weer wu jot le 23 booba jot danañu yóbbu loolu ñu liggéey boobu ñu tuddee ravitaayu maawu ndongo yi naka jëkk itam ci wàccaayu ziyaar bi ñuy def nii mbooleem daare yi daanañu siyaari ji sëriñ bi ngir nekkal gi mu fi nekkal sëriñ Tuubaa ngir mbooleem bànqaas yi séq Majmahun Nurayni sëriñ bi moo leen jox tur moo leen tette boole gii itam di Majmahun Nurayni mu jox ko tur tette ñu ci ginnaaw boole nañu doon nañ ab fédération ñu ne kon ziar bi nañ koy nañ koy ànd di ko def ñu ànd ko ay at waaye ba liggéey bi sosoo rek di ravitaillement yi ñu yëg ci moom mbégte moo xam ni yëg ci moom tawféex joo xamante ni mosuñu ko yëg ci bi ñu dalee ànd ak moom ci jëf ak liggéey yu toll noonu mu yegg wax ni liggéey Sëñ tubaab bii de ngeen xam ni maanaam bokk ngeen ko ak man loolu ñu yëg ci mbégteem ñu ne kon nag liggéey Sëñ Tuubaa bii nga xam ni moom mbégteem lañ ci doon sàkku dafa mel ni buñ ko jaaree ci ndongo yi danañ ko danañ ko gën a am. te yàgg ngeen ko ko joxit bi mu fi nekk te gis naa ni pas-pas boobu ngeen amee woon ba mu fiy nekk ngeen koy indi gis naa ne ren jii sax la yokk ndax eh, lu ne laaj nañ ko ci ci ci liggéey bi ci yu manqué ci ci daara ji di ma ko laaj ba am na ci sax liggéey bu rey boo xam ne jamono bi ñoom ñu ngi koy waaj ngir sumb ko te mu jëm ci wàllu néegu dongo yi ma ma jàmbatal leen ko woon te xëy na bu ñu demee ca kanam. xëy na loolu dana gën a leer muy liggéey boo xam ni sëriñ bi gërëm na ko lool ndax mooy li ma ko waxee ci njëlbeen gi rek damaa wax ne ma bi ma ko joxee dañ ma ku baax ku ne lu ma am ci loolu la ko amee te gis naa ni biir liggéey boobu it euh, yéen laa ci àndal ngeen ma ciy jàppale ci ci wet yu bare bari loolu nag lii pay bi xam ngeen ko ki ngeen di jëfal it xam xam ngeen ko muy sëñ Saliou Touré te it amul lenn loo xam ni jox ngeen ko ko te jëf jëmewu ko ci Sëñ Tuubaa te kenn ku ci nekk koy ànd rek jëmi Sëñ Tuubaa doo nga tax te waxtu nekk yéen a ngi gis li ngeen di jëf fi mu koy jëmee seen bët yi mi ngi ciy tege bu baax loolu it doon ci seede bu baax a baax. ci ginnaaw loolu nag ci la sëñ Abdoulaye joxe ndigal waa Thiès nee nag nañ tàmbali liggéey bi mu yebal sëñ Mourtada Mbacke moom sëñ Touba mu ñëw teg xeer loolu maa ngi dégg bi ko sëñ bi nee na man te te xeeroo fekke na ko waaye boobu sëñ bi mi ngi mi ngi waaye sëñ bi danaa ñëw Cees lu bëree bëri fii daa nekkoon jëmukaayam waaw kenn xamul ni maa maa ngi mujj doon imaam bi nee na ñu tam nekk ci liggéey bi ba liggéey bi yegg bi mu yeggee waa Cees àndandoo def mbooloo mu bari ay oto yu bari dem ci seen laaj jëbbal ko caabi ji ne boobu caabi ji ñu ngi ko def ci musuwaar bu weex tàll ne naka lañ ko ko jox mu sant leen gërëm leen bég ca lool daan ne ana Modou Mamoune Niang fekk na ba Modou Mamoune Niang ma toog ne di waxtaan ak Alaaji allaaj Masi Sekk moom it Cees la nekkoon bokk ci bokk ci magi Cees mun ne ko Modou Mamoune am caabi ji demal nga jox ko sëñ Abdou Khader daane jàkka joo xam ni titre foncier ba tudd sëñ Tuubaa moo see nekk imaam ba sëñ Abdou moo koy tànn tax kon ñu ni nag ziar bii nañ ko tuddee ziyaaru ndongo yi kon lépp luñ cay defati nañ ci jiital ndongo yi ngir dabu ci bànneexam ñu ni kat kon ziar bi nañ ko jàpp le 23 ci weer woowu tuddee ko anniversaire lii ñuy liggéeyale ndongo yi biñ ñëwee leeral ko ko mu mbég ca lool sant ci lool wa kullu man qadamani awzaara fa najhi wa finu awzaara wa kullu man ahabbani aw maala ilayya farzuqudan aw maala wa kullu man shatamani aw laama bu a ñëw ba toog jóge ziar bi ñëw toog dina am ñenn mag yoo xamante ni daana ko gunge bu ñëwee ba toog yeewu ñëpp bañ dem yàlla dogal nag ñun fa la ñuy nekk ndax lu baree bari dañ toog ci bunt bi waxtaan yi muy gën waxtaan li koy gën a yéem ñii at yi ñu yor niñ doonee ay gone ak pas-pas bi nekk ci ñoom ak addi ni muy toll te ni nga gën yéem mooy lan ñoom ñee kenn nu koo xam ne am na ci salaire daanaka amul ñoom ñëpp dañ di ay gone mu wóoree ne seen i ñaar fukki ñaar fukk ak seen i téeméer téeméer yooyee ñuy dajale ci la ñuy dajale ba mun cee indi lii di yéem pas-pas boobu ak yéen ji ngeen am te amagu kenn amu ci lu mu yor kenn amu ci lu mu yor. ndax am na bis boo xam ne sax yaakaar naa seen yére yi bi ngeen ko ñëwee ba indi ko ci dimanche bi ñu xëyee ci. ci ci altine gi daa ñëw ci jàkka ji ab yor-yor bu dëgër sax fi ñëwee ma daal di jël yére yi ak benn dàll yóbbul ko ci moom daal di koy wax ne ko ñi siyaare woon démb de élèves yi ñoom ñoo indaale lii ngir donga yi waaw mi ngi ci sant loolu sax ba daanaka man mi sant na ma ci ci bu baax a baax te loolu mi ngi mi ngi bàyyi ko ci seen ziar booba. loolu moo tax ziar bi at mu jot at mu ñëw rek ca at yu njëkk ya tàkkusaan la daan tàmbale 15 heures daan tàmbali taakusaan mu jeex ci biir ziar bi itam da ngay seetlu ni mu yittewoo liggéey bi loolu day fee ci biir ziar bi ndax deful rek waxtu wi ñu ko war a jébal addiyee mu ñëw nangu addiyee ji waxtaan ak mbooloo mi ko waaye bu ñu ko nee bisu ziar bi jàpp nañ ko sàngam diggante boobu saa yuñ ci gisee dana dana ma laaj seen bis bi kañ ngeen ko jàpp ziar bi kañ la ma wax ko fu ngeen ci toll lu ngeen ci nar ma koy xam. daal di ko jox caabi mu yóbbu mu wax mu daal nag waa Thiès comme nag taal leen loxo yi ma ñaanal leen daal di leen ni yeewi ndax boobu waa Thiès waa Thiès danoo jàppoon ni ci jotaay boobu fa lay fa la ñu am amee imaam ñëwaat nañ lu yàgg nekk fii di julli jàkka ji ak a jiite yëpp te bu fixé gannaaw bi nag ci sëñ sëñ Abdou dem sëñ Salim Mbacke boobu sëñ Salim ma nga Touba ne ko jàkka ja daa noppi te borom xam borom xam moo moo war a nekk tey mate ko sëkk ak sa ak yeneen kàddu yoo xamante ni xëy na du yomb a génn ci ci kaw ndax lu bare bari la ne ko te loolu lépp Salim euh, sëñ Salim Touré mi mate ko. sëñ Saliou Mbacké nag daal di yónni Moustapha Gaye ab taalibeem la ca ma ci magi magi kër sëñ Saliou la bokk ne ko na na xamal sëñ Saliou ture ni ko dama ko soxla suba Touba. lépp lu ñu daan def ci siyaar bi rek ci loolu lañ ko jëmale moo xam ay kaggu la yu ndongo yi di jànge moo xam ay téere la moo xam ay koddaay la moo xam ay lu luñ tuddee ravitaillement la ceeb dëwlin loolu lépp ñu dajale ko indi ko ci kanamam waaye bis booba sëñ bi buñ daan siyaar dañ daan siyaar dajaloo ñëw ci kër gi fekk ko fa waaye bis booba ñu defee ko ci jàkka ji du jàng waaye mu teel a génn lool nga xam ni boo demee ci jàkka ji ci ginnaaw am na garab gu fa nekkoon fala piliyaan ba toog mbooloo mi di dabu amuñu sax baas buñ fa def ñenn ñi di dabu ker gi di dabu ker gi ba fekk ko fa mu toog diglu njàng mi waaye wax ca waxam yu rëy yooyu mu wax ci mbooloo mi yegg na ci wax ni jàpp naa ni Sëñ Tuubaa bi may wax ni mbooloo danaa la toftal ak mbooloo moo àndal ci liggéey boobu seen mbooloo mi rek a tox ma doon wax loolu nag muy taw feexu waa Cees yépp loolu moo tax ci biir laaj sax moo tax am na menn at moo xam ne ni ñuy jóoree addee ji nii eh, ñu jënd ceeb ak diwlin ak ñëpp yëpp teg ko dangay ngay seetlu ni eh, dafa mel ni wane jëf ñëpp teew nga jël sa jëf teg ko noonu mel ni lu koy wone am na at moo xam ne dañoo xalaat ne addee ji dañ ko jiisal ci kër gi mboolem bu ñëwee ñu lim ko rek ñu dégg ko jox sëñ bi eh, kàddu waaye bi ma bi ma ñëwee ci bëccëg gi ne ko addi duñ ko bëggoon jiital daf ma ni eh, nit lu muy joxe lu ne war naa xam fan lay dugg ne def leen na ngeen daan def teg leen ko fa ngeen ko daan teg man bu ma ñëwee ma seedeel leen ko mbooloo mi xam ne lañ joxe seeni dërëm ak seeni ñaar dërëm ak maanaam moo ngi nii jébbale na ci biir jasaa yooyu itam ni mu wax ni yittewoo gi mu koy yittewoo am na si siyaar boo xam ni bi muy génn seize heures ñi ngi waaj a julli tàkkusaan nga xam dafa ñëw toog dajeeg nodd bi ñu julli ñëw muy toog gi ma toog bu mu yàq dara dama bëgg damaa bëgg xool liggéey bi ñu wéyal njàng mi ba 18 ñu jox ko mu soññe ci ziar boobu ca suba ga bi nu xëyee dañ bi may ñëw ci yéen damaa bëggoon jàngaatug taalibe ci seen jataay bi waaye xool naa leen biir ak biti gisuma ci mbooloo mi lu ma mën a xalab wax jooju lu rëy rëy la maam jëmm joo xam ni ëllëg sëñ Tuubaa dana ko laaj dana la laaj laaj ko moom itam naka la demee woon ak yow mu seere seere ju rëy jooju maam fii ci àddina waaye xoolal nañu nosoo ba bu ne dañuy seere ji sëñ Saliou Touré murit yépp nangu ko ci seen xol amul kenn koo xamante ni di nga ci am dengi dengi xol nangu jël sa alal donte da nga naan kii kat du sama wasila bu ma jébul waaye moo fi nekkal sëñ Touba nangu gi ngeen ko nangul nekk sëñ Touba googee mu wóoreen tey ji da ngay xool tey bu ne dañuy ziar sëñ Saliou Touré ñëpp Pastef gu mat sëkk amul naan ñi sama wasi déedéet waaye moo fi nekkal sëñ Touba kon moo tax kon ku ci ne da nga ci am cawarte googu ak nangu googe ak nosoo gi ngeen ci nosoo loolu tamit bokk na ci li ko gën a kon man damaa bokk ci ci biir liggéey bi ba ci sëñ daara it ñoom it ñëpp rek daanaka dañuy sant ni may santee rek daanaka ci ñuy sant ndax ñoom waxtu bu nekk bu ngeen di siyaare da ngeen di wit lu ngeen warloog ñoom ci wàllu koom maanaam waxtu bu ngeen siyaare di ngeen génn loo xam ne ci ñoom la jëm ci sama loxo bi lay jaar ma ma séddale leen ko mu doon siyaar boo xam ne dongay ndaw yeeg yu mag yi ñëpp dañ ciy gis seen bopp daanaka bu ngeen di siyaar si sax néew na daayira bu siyaare gis dongay wër bagage yi noonu daanaka bu ngeen di si yéen rek laa gis ñoom bu ñu siyaar si dongay dañuy ñëw wër bagage ndax xam nañ loolu seen alal la bu ñu noppee dañuy fab lépp yóbbu ko ci sama néeg boobu la ca war a def ma def ko loolu nag mooy li nga xam ni euh, xam naa ko ci bis bi euh, ma doon ci seede it. nee na gannaaw takkusaan nag laa yegg si ma yegg see ma yegg see Sëñ ci la ma wax li sëñ Abdou Lahat Mbacke bëgg sëñ Abdou ne ko demal ci sëñ Abdou jox la ndax moo fi ima ima imaamu Serigne Touba mooy nag sëñ Bla nee li ko dani ko def nañ la imaam imaamu cees ba faw ba faw liggéey bi di sos di tegu di loolu ba yegg si fii mu yegg si kon liggéeyu ndongo yi ni tax ñu tuddee ko siyaaru ndongo yi fii la sosoo lii moo tax mu agsi fii mu agsi diggante boobu itam ñu sosaat ci li ñu tuddee fóotu ndongo yi di ko ànd ak jëwrin ji nga xamante ni moo yor foofu ndongo yu ndaw yi muy Serigne Mor Talla Ndiaye ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci jàppandal gim ñu jàppandal liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax liggéey Sëriñ Tuubaa képp ku la ci jàppandal amatoo la ko fayee fexe chaque weer itam ñu ni bu ñuy yóbbu ravitaillement bi nañu laaj yére yi ndongo yi nga xamante ni tilim na ñu koy fóot ba mu yeesal ko ba mu yees dolli ca asaka luñ ci am yóbbuwaat ko ci ndongo yi ngir ñu mën kaa mën kaa yeesloo loola di dox ba tey jii suñu jonn yàlla tey kon ñoo ngi santaat suñ Tuubaa bu baax a baax ci liggéey boobu di ci woo ñëpp di ko yaatal ñëpp ren itam ñu tuddee ko delloo njukkal suñ Saliou Touré ci liggéey bu rëy boobu muñ defal. maa ngi fàttaliku at moo xam ni yaram wi diis na ba àgg ci lool bi ñu àggee ci bisu ziar bi nga xam ne ñeewantal naa ko sax ba ñëw ko wax wax ko ne ko bu nu dajee rek bu noppee ñu ñëw ci yow nga ñaanal ñu. waaye bi ma wàññeekoo ñëw si jàkka damaa toog tuuti rek seen ko mu génn ci kër gi di ñëw ci jataay bi boobu itam ci suba ga lim mu wax mooy ngeen def lii ngir sëñ tubaa man ma toog sama kër ay nit ñu ñëw ci sa kër ngir sëñ baa nga sañ a toog sa kër bàyyi leen ci mbedd mi ane loolu bu ngeen ko sañee itam bu ngeen ma ko ñaanee itam du ma ko sañ ndax xaw ma lu ma ciy fekk ëllëg kon yooyu yëpp day wane ni màggug màggug siyaar bi nag ren nag di at moo xam ni mooy at mi ñuy njëkk a def ci ginnaawam nga xam ne damay naa lim ñu doon jàngal yëpp mu jëm ci liggéey bii ci fekke geek bu nga geek lim ñu si ñetti léeg lépp ziar bi dafa war doon ziar boo xam ne moom la ñuy tari loolu ngir delloo ko ci njukkal jaajëfal ko ci ne koy dee fa taxawal julli juróomi ak iid yi ñaari iid yi eh, tabaski ak gàmmu yi nee na ma delluwaat wax ko sëñ Abdou Khadre ma dellu sëñ Abdou Lahat loolu moom it man ma ko ndigal ndigal yi mi ngi noonu am na am na sa lu mu ca waxaat loo xamante ne xëy na du jara biral mu ne ko moom it nee na mu jël xas mu jël xasida yi bëree bëri jox ko ne ko Saliou sëñ Touba jox na la raison Thiès ak la ko wër ne bu ko doxee nag bu ko bu ko doxee bu ko waxee dana fob lépp teg ko sa loxo loo gis loo loo gisul rek xamal ni baaxut waaye lépp la lépp la fa baax rek dana ko jël teg ko sa loxo. muy nit koo xam ne boo ko doon natt ci xam-xam du neex a jam boo ko doon natt ci ak taalibe doo ko mën a jam. boo xoloon nag ci jaamu yàlla ak ci am cër ci yàlla doo ko mën a jam yii yëpp daye ci moom te benn yàqut moroomam xam-xam bi yàqut taalibe gi nitu yàlla gi yàqut taalibe gi taalibe gi yàqut xam-xam mat gi itam maanaam dayo na dayoo nga xam ni jëflante gi fexe ba murid ji bu fekkoon Cees fukki murid la fekk yóbbu na ko ci ay junniy junniy murit saa bu nu xëyee nit dana ko xool déglu ko gën a bëggaat Sëñ Tuubaa gën a bëgg xam lan mooy yoonu murit gën a bëgg koo jege. sëñ bi nag daal di daal nag daal di dellu got nes tuuti mu dajee tabaski mille neuf cent soixante dix boobu mu ngi dajee bis àllarba 31 octobre mu ñëw ñu andi ko andi fi sëriñ bi mu jiite tabaski bi delluwaat daal di waaj nag soog a dellusiwaat ànd ak euh, ñu war a àndal bokk na ci ñi àndaloon bi muy ñëw kuñ naan Cheikh ja Cheikh ja ak Sidi Faye ay mag lay woon ca xabaan ak euh, waa kay ñooñu la àndaloon ak ñeneen sëñ Modou Mamoun Niang moom moo jóge Touba ci turu Cheikh Abdou Cheikh ñoo fii daje fekk ak euh, ñi ñi ngànk liggéey bi xamal la que ni leen Serigne moom la def muy imaam jàkka ji tey moo fi naka sëñ Touba. di santaat mbooloo Majmahun Nurayni fii fa aw di daari di sant eh, Cheikh Ahmadou Bamba Touré mi nga xamante ne tamit bi bi ñu noppee gis Serigne Saliou Touré ci sunuy bët moom itam daanaka eh, mu ngi ànd ak ñun liggéey bi fépp fu Serigne bi daan taxawee moom mu ñu fay taxaw di ñu fa di féete fa kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën koo woyofal yen bi te gën ko may fan wu gudd ak ak wér ba lépp lu mu naal ci yoonu Serigne Touba sunu borom defal ko la kawe njortam bu baax a baax a baax. ñu ciy woo ñëpp. di ñaan ñëpp fekke ko te tal ko te ñu am ca ngërëmal Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kenn ku ne nag ci ñi mu bàyyi ginnaaw rek acteur nga ci ñi nga xam ni dañoo war a yaatal doxalin wu wér woowu bëgg Sëriñ Tuubaa gi yittewoo ko yittewoo xam-xam ba noppi tege ci am jub ba noppi doyloo Sëriñ Tuubaa ci fànn yépp moom loolu la doon jàngale. kon maa ngi soñ sama bopp di soñ mboolem waa daara ji ñu xam ni. mañ ma na ni yoon wi ñu suñ saltu rek tegoon tey lañu gën a fas yéene sóobuwaat ci te saa bu nu xëyee dana mel ci ñun ne tey la ñu koy doog a wax ci jëmmal loolu ci jéem ci sunu kéem kàttan ci fexe saa su ne liggéey bii mënu bàyyee nu muy gën a jëm kanam loolu nag jàpp nañ ne buñ ci saxee rek ndimbalal Sëñ Tuubaa saa su ne mën nay gën a feeñ mën na gën a yaatu fànn yëpp mën na suñu borom rawatina bi ñu suñu borom wërsëgalee mu bo mu bàyyi fi njaboot goo xam ni njub ak xam-xam ak bëgg sëriñ bi ak doyloo ko li ma waxoon sàng ne xam-xam gi du yàq taalibe gi taalibee gi du yàq jaamu yàlla gi loolu boo ko boo ko ci njabootam rek boo ko jeexee ci lu soriwul dara da nga ci dajeeg ñoo xam ne melo yooyu sax daje nañ ci ñoom. kon daa mel ni eh, gannaaw bi ñu sante ak ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa loolu daal mooy kàddu yu mujj yi nga xam ni maanaam maa ngi koy dénk sa mbopp di ko dénk mbooleem koo xam ni yaa ngi ci maj ma noonu moo xam bopp ba tey wala tey nga ci bi wala ñi nga xam ñooy ñëw gannaaw biñ defee jataay bi jërë ngeen jëf kon loolu ci gàttal daal mën naa wax ni mooy ñëw sëriñ bi fii wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu inna allazina ila sarsara qad xasadu ziyarati faaraxu daarayni aw zaara jërë ngeen jëf uh, mbokki internet yi mbokki taalibe yi mu mel ne comme niñ leen ko wanee ci ay vidéo ci lenn li nga xamante ni moo di taarixu ñëwug sëñ bi fii ci biir Thiès ak liggéey bu rëy boobee nga xamante ni moom la njabootug Cheikhul Khadim maase dénk ko ko ngir mu ñëw fii ci Thiès ngir àggale waa dëkk bi fa sunu borom waaye itam ci lenn li nga xamante ni mooy diggam ak fédération Majmahun Nurayni ak euh, moom bi nga xamante ni moo di Serigne Saliou ture kon mu mel ni rek kaddu yi fi bawoo nekk na ay kàddu yoo xamante ni ay kàddu yu mat a am jàngat la ndaxte jëwriñ yi nga xamante ni ñoo sos liggéey bi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni boobu ak léegi dégtal nañ leen ko ñu mën cee euh, tudd ñi nga xamante ni mu ne su la ñàkk te boobu ak léegi gis nañ seen taxawaay bu réew yi nga xamante ni am nañ ko ci fédération bi lenn ci njabootam. kon mbokk taalibe ku dégg kaddu yi mu war a nekkat ay kàddu yoo xamante ni laxasaay lees ko war a def. Euh, bàyyi benn yoon liggéey bi di laal suuf te am na njort gu rafet ni jéego yi ñu nekk buñ ko yokkee incha allah rabbi ndam képp lañ ci am te sëñ Tuubaa mu ngi ci biir mbooloo mi te seetaanuñu benn yoon kon mu mel ni suñu ay kaddu foofu rek lañ koy wàccee waaye du ñu jeexal suñu ay kaddu te santu ñi nga xamante ni boobaak léegi ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi seen taxawaay wu rafet ndax liggéey bi yombul woon muy waa presse comme Majmahun Nurayni TV buñ ci tuddee jëwrin baara day yóbbaale mbooleem koo xamante ni rek moo ngi si biir presse bi jërë ngeen jëf salaamualeykum wa taala wa barakaatuhu زيارتي فارق الدارين أو